ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jigéen ñu ñuy mitital ak di leen xor ñooñal ci réew mi ñi koy def l'observateur nee nañu borom réew mi di Macky ci guerre ak ñoom ca la jëm ubbil yéenekaay bi démb ci la doon amal ñaareelu ndaje mu di deuxième conférence union africaine sur la masculinité positive président Macky Sall mi doon teewee ndaje ma ca centre conférence Abdou Diouf ba ca jam ñaajo l'observateur waxee ne seen kàddu boole ceeg taxaw temb ngir dàkkal ñi soleil national xamal ñu ne président national na élan bu bees ngir jële fi mitital gi ñuy teg jigéen ñi di def ko xeexu boppam l'info nañu président Macky nee na basta stop bëggatut a gis gone gu jigéen mbaa jigéen gu ndax nee na du histoire du diine te du dara lu mën a maye ñuy mitital jigéen baa ñu leen di fitnaal wala boog ñu leen di toroxal te nag taxaw naan ni fi juge rek du loolee ko fiy juge Macky Sall nee na buñ ko fi bëggee jële dañ koy doxe waxe ko jëfe ko ni jigéen du ku ñuy maltraité du ku ñuy brutaliser du ku ñuy harcelé a ngi ju ne woon cib sëy son noon ca ba génn ci ñëpp bëgg a xam lu ca xew di miyaa gisee bu groupement ba waa l'observateur fexe nañu ba séq ak moom waxtaan waxtaan wu exclusif te xóot la miyaa gisee def ak Maria Dominica bu l'observateur ndénkaane jigéen ju gaañu di dem ak i liggéeyam ak i tërgënam confidence d'une femme blessée noonee la l'observateur tuddee waxtaan wi miyaa gisee nee na leen dund na ci ab sëyam loo xam ne ngorom ak doomam ju jigéen mayu ko mu cay wax wax na ne groupement bu amatul diggam ak no fees c'est fini tas nañu ñetti yoon doom jigéen ji ñu am moom la ñu séq fa relation ba am sant yàlla ndax léegi am na sañ-sañu di waxtaan di reetaan ak di dund dund gu àndut ak tiitange journal Tribune amuk tiitange ci poñse mburoog soow doxe fi nëb baa mu doxe fi xajam laata 2024 maanaam jafe-jafe am ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall ba ànde bi doxe fi ka sax li tax yéenekaay bi nañu moo di li mbëtt bëgg moom la bar bëgg ne bëgg-bëgg ndaamal kajo di Idrissa Seck moo di remplacer Macky Sall ci bopp réewum Sénégal loole bu ci ñëpp yamee ak mbay Ndiaye du gaaw am yëral xët mu njëkk Le Quotidien ministre Mbaye Ndiaye directeur structure parti bi di APR moom la yéenekaay bi xëy di waxtaan ñaanal Mbaye Ndiaye nee leen Macky Sall mooy suñu candidat ci élection présidentielle 2024 mu ne te loolee du lu ñuy négocier baa ñu koy lam-laamee obligation la na Macky Sall déglu parti bi def li parti bi bëgg mu ne ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñuy te plan X Ousmane Sonko feeñal na ab dil bu toll ci 196 milliards Walf Quotidien moo ko bind le téeméer dollil ko ci ne Sonko nee na ay njuuj ki tappale ki la yu am ci wàllu suuf te régime bi fi nekk démb ba muy jan taskatu xabaar yi waxaat na leen fa luy tàkkate du fay wax na ci ab deal bu mu ne dafa am ci diggante régime Macky Sall ak benn famille bu fekk baax Israël di ñoo xam ne dañuy yëngu ci njaayum gànnaay wax na démbit ci mbiri Pape Alé Niang mi ñu téye ca kaso ba ci moomi le mbir mu di mbiri Pape Alé Niang lise ko mi ngi ñuy xamal ne jële nañu ko ca kaso bu rëbës transféré ko ca kaso bu sébbi xotaan presse bi ci réew mit yéenekaay bi ne toll ci juróom-benn at bi ko beneen moromu taalibeem bu toll ci fukki ak ñeent ñu naan ko tee caw doon suul booba fekkul mu dee.